sont pas hébergés au Sénégal sont hébergés soit au Canada soit aux États-Unis soit en France ou bien dans d'autres trucs et le nom de domaine l'hébergement vous pouvez le faire en un clic à part de votre ordinateur il faut tout simplement d'avoir un avoir un bancaire avec avec euh, euh, quelque quelque quelque avec une somme d'argent pour pouvoir le faire donc vous avez la possibilité d'avoir votre site internet et de commencer à mettre en ligne un certain nombre d'informations mais ça ne suffit pas pour pouvoir être reconnu au Sénégal, à la suite de cela, vous devez avoir une entreprise qui sera éditrice de ce site internet-là. Et après cela, vous enregistrez au niveau du ministère de la Culture et de la Communication. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez venir au sein de la commission pour obtenir votre carte nationale de presse. Nous avons reçu des dossiers que nous ne pouvons pas traiter parce que ces gens-là travaillent dans des organes qui ne sont pas considérés comme des entreprises de presse et par conséquent la commission ne peut pas délivrer une carte nationale à, à ces gens-là. Donc juste pour vous dire que pour toutes les personnes qui travaillent dans des sites internet, ils doivent savoir que le site internet doit d'abord être une entreprise de presse. L'exemple que je vous donne, senweb.com, c'est un site internet. senweb.com, c'est un nom de domaine. Donc c'est un site internet senweb.com. Mais est édité par Seneweb SARL. Donc c'est la société Seneweb SARL qui édite seneweb.com et Seneweb donc est considérée commune entreprise. IGFM, dont je suis le directeur de publication, est un site internet. Mais IGFM est édité par le groupe Futur Média. C'est le groupe Futur Média qui est l'entreprise de presse. La radio RFM, entreprise de presse GFM. La TFM, entreprise de presse GFM. Donc il faut impérativement qu'il y une société d'abord qui héritent. Voilà. C'est ça. Donc donc je, je voulais je voulais je voulais je voulais je voulais au moins que les, que, que ça soit que ça soit que ça soit clair quoi. quelqu'un peut dire façon moi j'ai un site internet, j'ai déposé et on, pas délivré donc donc on ne respecte pas la loi. Non. Nous respectons la loi parce que tout simplement le site internet doit d'abord être une entreprise de presse avant de pouvoir bénéficier des dispositions quand même qui sont prévues par la loi euh, en ce qui concerne les entreprises de presse. Donc tous les avantages liés aux entreprises de presse, il faut d'abord être une entreprise de presse avant, avant de la... La carte nationale de presse fait partie des avantages là qui sont, liés euh, aux, entreprises de presse. Le fonds d'appui à la presse dont parlait Canute également, si vous n'êtes pas une entreprise de presse, vous ne donc pour toutes les personnes qui disent qu'ils ont des sites internet il faut il, il faut il faut que ça soit traduit en entreprise de presse d'abord avant de pouvoir venir au sein de cette commission je voulais faire la précision là pour au moins éviter que demain que des gens déposent et que leur dossier ne soit pas traité et qu'ils disent que de toute façon la commission là n'a pas fait correctement son travail ou bien la commission fait du favoritisme une entreprise de presse pour pouvoir obtenir la carte nationale de presse. Pour l'entreprise de presse également, merci, merci, merci, merci Président. Pour l'entreprise de presse également, le code de la presse est claire Pour avoir une entreprise de presse en ligne, en ligne, il faut utiliser trois professionnels des médias. Le directeur de publication doit avoir une expérience de 10 ans. Le rédacteur en chef doit avoir une expérience de 7 ans Et après, il doit y avoir une troisième personne, un troisième journaliste, voilà, qui est un journaliste voilà, qui, qui, qui, qui répond aux critères d'un journaliste suivant les dispositions du Code pour pouvoir être considéré comme une entreprise de presse. Voilà, donc l'adresse doit être connue. Bon, les personnes qui travaillent là-bas, on doit verser pour eux les cotisations sociales, les presses, la caisse et tout ce qui va avec pour que ça soit considéré comme une entreprise de presse. Sinon, ces gens-là ne pourront pas obtenir la carte nationale de presse. C'est la, c'est la loi PSD. Lorsque vous êtes sorti d'une école de formation en journalisme, vous avez votre diplôme et vous êtes freelance, vous avez la possibilité d'avoir la carte nationale de presse. Mais il va falloir, parce que dans la définition du journalisme, il y a, dont le travail consiste en la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Donc quand vous êtes freelance, vous faites à une entreprise de presse. euh, des preuves de cette collaboration-là avec une entreprise de presse. Donc vous n'avez pas une attestation de travail, mais vous avez une preuve de collaboration avec une entreprise de presse que vous déposez. À partir de ce là vous pouvez avoir votre carte nationale de presse. C'est clair, Quand vous travaillez, internet. Merci. Merci beaucoup. Quand vous travaillez dans un site internet qui n'est pas considéré comme une entreprise de presse, même si vous déposez votre attestation de travail vous obtiendrez pas votre carte nationale de presse parce que je vous dis je vous dis dans le cadre de notre travail la loi nous dit que nous avons la possibilité de faire toutes les vérifications qui s'imposent aujourd'hui avant même de démarrer nos travaux pour ce qui concerne euh, les écoles de formation nous avons adressé une correspondance au ministère de l'enseignement supérieur Kanouté ne me laissera pour lui dire pour leur demander de toutes les écoles de formation en judaïsme au Sénégal reconnues par l'État. On nous a donné la liste. Donc aujourd'hui, si vous venez vous déposer votre diplôme, nous devons regarder d'abord si le diplôme est délivré par une école de formation reconnue par l'État suivant la liste qui nous a été délivrée par le ministère. Parce que nous, notre mission quand même, c'est une mission de service public. Et par conséquent, nous travaillons avec les demandes de l'État, forcément. Donc, nous avons Vous déposez un diplôme, vous dites que c'est telle école de formation qui l'a délivré, donc nous regardons si l'école de formation est reconnue par l'État, suivant la liste qui nous a été délivrée. Et par, après cela, nous voyons si le diplôme est authentique, euh, naturellement. À la suite de cela, nous pouvons délibérer conformément à la loi. Vous venez également, vous dites que je travaille dans une entreprise de presse. Nous avons la possibilité de vérifier d'abord si l'entreprise de presse est reconnue Et la deuxième chose, si effectivement vous travaillez dans cette entreprise de presse-là comme vous le prétendez. Donc ce sont des vérifications qui, qui, qui se font. Donc pour répondre à votre question, si vous travaillez dans un organe qui n'est pas considéré comme entreprise de presse, vous ne pouvez pas prétendre à la carte nationale de presse. C'est clair et net. Automatiquement, la licence, la licence L, L2, c'est Bac plus 2. Donc ce qui est reconnu, c'est une formation diplômante de Bac donc il faut. Donc, licence même même même c'est bac plus 2. Oui. voilà donc ce qui ce qui est, le diplôme en journalisme et communication reconnu au sein de la commission c'est bac plus 3 donc c'est forcément licence trois C'est ça. au moins au moins au, ouais, au master bon c'est c'est c'est minimum. bac plus bac bac plus 3 quoi après bon master 1 master 2 master 3 bon bu la nga am doctorat mais l'essentiel le minimum c'est une formation diplômante de bac plus 3 donc donc donc l'école de formation qui vous a délivré euh, un, un, un, un diplôme de L de de de de, de L2 euh, je doute même que ça soit une école de formation reconnue par l'État voilà donc ça c'est la première des choses donc ça veut pas dire que vous pouvez pas déposer si si si de toute façon euh, si vous n'avez pas le diplôme de bac plus 3 vous pouvez pas euh, déposer en tant que diplômé Mais si vous avez la licence dans une autre discipline, ou bien si vous avez 10 ans d'expérience dans la de traitement et la diffusion, vous pouvez déposer et en ce moment-là, vous passez par la commission de validation des acquis de l'expérience. Mais euh, de toute façon, les avantages qui sont liés au diplôme, par exemple de journalisme et de communication, vous ne pouvez pas en bénéficier si vous n'avez pas Bac plus Voilà, c'est la, la réponse. Voilà, c'est clair. Avoir une autre carte. Bon, c'est même pas un duplicata, c'est Et en ce moment la même procédure. Vous construisez un, un, un, nouveau dossier. Un nouveau dossier, vous payez, vous parce que... Euh, ouais, je pense que c'est le code de la presse qui définit réellement qui est journaliste. Si vous prenez de la presse, cet article dispose que la, seuls les détenteurs de la carte nationale de presse peuvent de la qualité de journaliste et des des médias. Donc ça veut dire juin, toutes les personnes qui se présenteront dans les lieux publics, que ce soit au niveau de la gouvernance, à la préfecture, au palais de justice, ou bien dans les manifestations publiques où il y a des gendarmes et des policiers, pour prouver sa qualité de journaliste et de technicien des médias, il faut impérativement euh, délivrer la carte nationale de paix et non pas la carte maison. Donc à part du 1er juin, ce n'est plus la carte maison qui prouve la qualité de journaliste, mais c'est la carte nationale, nationale de de la même manière également pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages liés à la presse il faut impérativement détenir la carte nationale presse je veux dire que aujourd'hui pour s'accréditer au niveau international pour couvrir par exemple la CAF la FIBA ou bien ou bien, ou bien on ne demande plus la carte maison mais la carte nationale de presse et les ambassades également vont tout simplement demander la carte nationale de presse et non, De la même manière également au niveau du ministère de la Culture et de la Communication pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages parce que vous savez que il y a beaucoup de chancelleries d'ambassades ou bien de pays qui offrent des bourses de formation et qui demandent au ministère de la Culture et de la Communication de coopter un certain nombre de journalistes. Désormais, à partir du 1er juin, le ministère de la Culture et de la Communication ne peut pas faire bénéficier de ces formations-là qu'aux gens qui sont titulaires de la non seulement respecter la législation, mais également bénéficier d'un certain nombre d'avantages euh, liés à, à, à, la carte nationale de presse à waaw euh, tey li nga xamante ne moom moo ñu fi indi mooy dañu entamé benn tournée nationale euh, bu nga xamante ne commission bi moom moo ko décidé euh, pour tout simplement vulgariser li nga xamante moom mooy texte yi expliquer lan mooy commission carte nationale de presse et wax également solo carte nationale de presse boobu nga xamante ne solo bi bi carte nationale boobu am ci profession de journaliste yi carte bu nga xamante ne dañ ko édité dans le cadre de l' assainissement ah, du code de la presse euh, tey jii nag ñu ngi commencé Thiès ñuy gërëm nag ki nga xamante ne moom mooy gouverneur bi nga xamante ne moom mooñu ñu dalal fii non seulement aménagé na aménagé na euh, calendrier pour mën a ñu rencontrer waxtaan ak ñun ñu expliquer li nga xamante moom mooy suñuy tànk mu bénér ñu également ci loolu nga xamante ne moom la ba pare jël benn salle mettre ko à notre disposition muy fi nga xamante ñu ngi fi teew tey muy salle de conférence bu gouvernance bu Thiès donc ñu koy gëm gërëm di ko remercier ci loolu ndax wax dëgg yàlla facilital nañu liggéey bi nga xamante ne moom lañu fi moom moom moo ñu fi indee li ñu fi indi nag comme ni ñu leen ko waxee mooy vulgariser li nga xamante moom mooy commission bi mais également enrôler ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci région bi mooy que ni depuis le 15 mars 2022 dañu commencé li ñu wax dépôt pour l'obtention de la carte nationale de presse léegi nag fonds d'appui à la presse jox ñu benn financement pour ñi nga xamante ne ñooy correspondants yi ak les nouveaux sortants d'école ñi nga xam dañu génne école 2020 2021 ak 2022 la nga xam ne dañu ko daan jox joxe ci xaalis pour am carte nationale de presse ñooñu duñ ko joxe léegi ba ñu joxee financement ñun nag ñu ne on va en profiter non seulement déplacé wu ci région yi. pour faciliter liggéey bi nga xamante ne liggéey boobu ñi nga xamante ñooy correspondant yi au lieu que ñoom ñuy déplacé wu ba Dakar ñun ñu dem fekk leen ci région yi pour enrôler leen sur place également répondre ci question yi nga xamante ne dañ dinañ ko posé pour mën a comprendre li nga xamante moom mooy suñu liggéey comprendre également lan mooy solo carte nationale de presse boobu loolu nag moom lañ commencé tey jii muy Thiès bu ñu paree foofu dinañ dem euh, région est muy muy Tambacounda ak Kolda bu ñu paree foofu dinañ dem euh, Saint-Louis pour enrôler ñi nga xamante ñoom ñoo ci région de Saint-Louis comme nekk Saint-Louis comme nekk Matam Podor ak ñoom ñëpp euh, bu ñu paree ci loolu dinañ dem Ziguinchor pour enrôler ñi nga xam ñooy waa Ziguinchor ak waa Kolda ñu paree ci loolu dinañ dem ci région centre muy Kaolack euh, pour enrôler ñi nga xamante ñoom ñooy Kaolack ñoo nekk Kaolack Kaffrine euh, ak ak ak ak Fatick donc loolu mooy tournée bi nga xamante ne commencé nañ ko entamé mu ñu commencé ko Thiès tey di ko def nag durant week yi nga xamante ne ñoom ñoo ciy topp yëpp donc cinq week-end yi topp yëpp. daf ñuy wóor ne ñu ngi nekk ci ci à l'intérieur du pays pour enrôler li nga xamante ñoom ñooy correspondants régionnaux yi waaw liñ ci yokk nag mooy tey jii daf am lu nga xamante ne code de la presse moom moo ko prévoir lu nga xamante ne mu ngi ci code bi mais appliqué wuñ ko woon depuis depuis depuis boobu parce que li taxoon appliqué wuñ ko woon nag mooy bugguñu woon euh, na laa koy wax sax sonal ñi nga xamante ne ñoom ñooy journal ak technicien de la communication bi euh, appli appliquer disposition de la loi dans toute sa rigueur nekk lu nga xamante ne daf leen di xaw a xaw xaw xaw a na laa koy wax sonal parce que enrôlé wuñu convenablement euh, léegi nag bi nga xamante ne commencé nañ def suñu liggéey depuis le 15 mars dañu décider que ni à partir du 1er juin 2022 carte nationale de presse boobu dafay nekk lu nga xamante ne lu exigible la sur toute l'étendue du territoire national lan lay signifier mooy à partir du 1er juin 2022 képp ku nga xamante ne nee nga journaliste nga wala technicien de la communication li koy prouver mooy carte nationale de presse parce que article 22 bu code de la presse moom moo ko wax moom moo ne la carte carte nationale de presse moom mooy euh, jumtukaay bi nga xamante moom rek moom mooy prouver la qualité de journaliste ak technicien de la communication maanaam tey booy ñëw tey gouvernance fii en tant que journaliste wala technicien de la communication ngay dem palais de justice ngay dem palais de la république ngay dem assemblée nationale wala ngay couvrir benn manifestation publique ci mbedd bi wala privé ña nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk nekk autorité pour ñu la mën a reconnaître ni journaliste nga wala technicien de la communication carte nationale moo lay permettre ñu reconnaître la et non pas la carte maison carte nga xamante ne moom la ñuy moom la ñuy wane pour prouver que ne journaliste lañ mais carte nationale de presse mooy li nga xamante ne moom la ñu war a wane pour prouver que ne journaliste lañ de la même manière également yenn disposition yu nga xamante ne journaliste dañ ciy bénéficié wu képp ko amul carte nationale de presse mënatoo ko mënatoo mënatoo ci bénéficié wu maanaam tey pour nga war a accrédité wu CAF nga accrédité wu par exemple FIBA wala nga war a écrat euh, nu tuddee accrédité wu FIFA wala nga war a dem ci ambassade yi pour ut visa en tant que journaliste ak technicien de la communication carte nationale de presse ngay wane et non pas la carte maison muy muy benn la deuxième chose également au niveau du ministère de la de la de la de la culture et de la communication boo fa demee dafa am ay dispositions yu nga xamante ne lu ci bëri journalistes yi dañ ciy bénéficier wu moo de dafa am ay ambassades ay pays yu nga xamante à chaque fois dañuy offrir des bourses de formation yu nga xamante ne journaliste sénégalais wala technicien de la communi de, communication bu ñu koy def nag ñu ngi koy jox ministère de la culture et communication pour que mu copte ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci participer donc désormais ministère de la culture la communication képp ku nga xamante ne war nga bénéficier wu ci formation yooyu da nga war a li ñuy woowee sa carte nationale de presse carte nationale de presse dafa nekk carte bu nga xamante ne carte biométrique la bu nga xamante dafa am un certain nombre de sécurité avec ay information yu nga xamante ay information apparente la mais dafa am ay information cachée yu nga xamante ne code QR bi moom moo ko moom moo moom moo ko détenir donc tey jii képp ku nga xamante ne yor nga carte nationale de presse ñun commission am nañ possibilité xam ndax carte nationale boobu carte bu baax la ña nga xamante ne ñooy ay organisateurs lañ également am nañ possibilité xam ndax carte bi baax na wala baaxul bu ñu contacter ñun ñu envoyé leen benn message bu nga xamante ne dafay am benn code QR bu nga xamante ne mën nañ ko scanner pour xam ndax carte bi baax na wala baaxul que mu nekk policier bi wala mu nekk gendarme bu nekk Thiès fii il suffit tout simplement que ñu contacter commission bi ñu envoyé leen si ak seen téléphone portable ñu scanner pour wax ni par exemple kii li mu yor ni baax na wala baaxul donc ce qui fait képp ku nga xamante ne falsifié nga carte nationale boobu également na la wóor ne yaa ngi exposé sa bopp ci ay sanctions yu nga xamante ne nit ki mën nañ la jàpp te mun nga ci dem ba ba ba dem ci kaso juste pour dire que ñi nga xamante ne ay ayants droit lañ nañu ñëw ci commission bi am li nga xamante ne moom mooy seen carte nationale de presse képp ku nga xamante ne yelloowoo carte boobu également na nga fexe ba nga xamante ne bul ko utiliser parce que lal ci mën a fekk quand même lu lu lu lu diis la parce que code bi prévoir na ay sanctions yu nga xam ne mën na la yóbbu ba kaso.